autre la euh, mhm. conséquences économiques yi moom euh, bari na bon presse bi wane na que euh, pratiquement c'est des peut-être des dizaines ou des centaines de milliards mhm. la ñu la ñu yàq loolu nag dina am impact immédiat bi moom c'est que dundin bi dina dina gën a jafe mhm. mais aussi je pense que d'ici au moins deux ans dinañu dund les conséquences de de de de que ce soit l'université que ce soit le transport mm-hmm. euh, que ce soit le secteur privé crise bu demee nii am impact euh, perte yu toll nii mm-hmm. mënoo ko régler en en quatre mois ou en huit mois mm-hmm. dina continuer fii ak un an lu bon bon bon beneen conséquence aussi c'est maintenant l'état de des arrestations nombre bi procédure de justice bi am na ñu ñu bàyyi bon ça aussi ça va être long ah. le temps de la justice avec euh, 500 <laughs> personnes euh, arrêtées euh, dina jël euh, temps Mmh. Bon, c'est vrai que la Banque mondiale, c'est un, c'est une grosse question. Banque, banque mm-hmm. c'est pas, que dañ lay may. Non, du bàyyi dafa yàlla ñoom ñoom c'est internationale. Euh, c'est sûr que xam nañu lu xew am nañu déjà ñoom seen bon banque bi mu ngi fii ah ils ont ces techniciens euh, avec le ministère de l'économie bon amul dara bu luñ lu leen ump ci économie Sénégal mm-hmm. donc ñooñu dañuy saytu ne bon Sénégal am na problème par exemple sur les les salaires ou am na problème sur les infrastructures wala éducation banque bi réunir jël dossier Sénégal ne bon par exemple ci année bi fii ak fin deux mille vingt trois mille vingt quatre mën naa leen dimbali dans tel ou tel secteur donc leb la bor la bon maintenant c'est sûr et certain que dépassé nañu les soixante dix pour cent de de l'endettement c'est sûr ça au moins maintenant dette bi. la grosse question politique tey jii classe politique bi mu war a sóoraale c'est que Macky Sall il finit en 2024 mm -hmm. donc nañu def attention ci dépense publique ok parce que ñu ngi dem ci présidentielle mm -hmm. bon kenn xamul kan moo nar a euh, remplacer Macky Sall est-ce que day rempiler est-ce que day gagner est-ce que keneen mooy ñëw donc la dette de la Banque mondiale comme de FMI je pense que acteurs politiques yi aussi war nañ ko sóoraale ci seen euh, ci seen débat mhm. et peut-être même pendant la campagne parce mhm. que c'est des questions tellement difficiles que nit ñi bon en général bëgguñu wax ci loolu alors que c'est quand même l'économie du pays war nañ ci bàyyi xel mhm. bon maintenant l'autre problème peut-être de la presse aussi bon c'est un problème très sérieux parce que ba léegi on a quand même des journalistes euh, ñu ngi en prison bon euh, syndicat des des journalistes le patronat ñoom ñëpp ñu ngi mobiliser pour dem engrais grève hmm. jàkkaarloo ak gouvernement bi bon loolu aussi je pense que presse bi dina ko topp hmm. ñu xool daal ñu xool ba xam